ndax nag ñi nga xam ne ñooy wax ne élection du am ci réew mi na leen leer na loolee nekkul sunu ginnaaw sunu kanam la nekk te nag saaga yàkkamte xeex la conseil constitutionnel jël na dogal bi nga xam ne moom lay jël te bépp liste boo xam ne respecté wu parité maanaam munoo bokk ci élection yi un point un trait noonu la ko xamle ci réew mi quotidien ak ci l'observateur ci vox populi ak ci le quotidien yéen kay di enquête ñu koy fekk fa mu mel ne lu koy feeloo nee na moom dina am benn ci weeru sulata yéen kay gi di vox populi moom njiitu réew mi di président Macky Sall nee na nag Sénégal di deltu ginnaaw waaw opposition bi ñoom nag bu ñu jëlee ab dogal boo xam ne arrangé wu la na ñu bëgg naka woote adduna bu tukki te loolee munta nekk yéen kay gi de Le Quotidien Aminata Touré ne na opposition bi saaga yi nga xam ne moom la ñuy saaga ak menaces yi nga xam ne moom la ñuy menacé loolee tegul fenn anti républicain la inacceptable noonu la ko Aminata Touré xëy tuddee yéen kay gi de La Tribune ñu xëy fekk fa Abdoul Mbaye nee na Sénégal li ko jik mooy ñu organiser ay élections yoo xam ne ñëppoo ci ànd élections yoo xam ne yu leer nañ ñi lay doona lu may loolee rek mën naa dugg ci girawali koo xam ne danañu si bëgg a génn lañu yéen kaay gi de la témoin xëy di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi bëgguñu mu sedd ndax nee nañu ajjuma ji nga xam ne ñoo jaaxal Macky Sall ñi mu àndal mooy Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias le vrai xëy fësal ko ci xëtam njëkk nee ñaari phénomène yi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi yéen kaay gi di exclusif ñu xëy fekk fa Ousmane man ko wattu Sénégal nee ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Yewwi Askan Wi ay nit lañu yoo xam ne ñu dangereux lañu waaye tamit ay nit lañ yoo xam ne maanaam yu soxor lañu te mobilisation bi nga xam ne moom lañ doon def dañu seel a jéen takk der yi nañu jël seeni matukaay jàmmarloo ak bandi ndax ñi ay bandi lañ yoo xam ne lu ne sañ nañ koo def ci ndax bisu mobilisation ba am na ay élément yu MFDC yoo xam ne bëggu nañu ñëw ci rassemblement bi ñu daal leen di teg loxo yéen kaay gi di Vox Populi ak réew mi ko loxo ni ki démb waa kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati woon fan yi ñu génn ci rassemblement bi nga xam ne Wi doon nañu ko amale mooy kàddu yi mu wax ko Macky Sall yéene kaay gi nee na article 80 diffamation division de fausse nouvelle loole la ñu koy toppee ma ngi ci ab garde à vue gi délibération nee na Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké bi ñu ko laajee na ko suuf si wax Macky daf koy sàcc jigéen gu dugg nag biir bi lan nga si jublo mu ay wax la joo ne kenn ku nekk na koy déggee waxuma suufu dara waaye nag ku nekk ak ni nga koy déggee te yaakaar la doon waxal yéene kaay gi di réew mi quotidien ak le quotidien ak l' observateur ak las ak xëy di ñu xibaar na ñu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mere na lool ñi nga xam ne ñooy waa Inde la ko waral dafa amoon benn débat télévisé parti au pouvoir ba seen porte parole ba yëkkati ay kàddu yoo xam ne yu ñàkk war ma la jëmale ko ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci yonente bi kàddu yooyu nag moo nekk kàddu yoo xam ne moo naqari Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ba mu sàkku nag ci ñi nga xam ne ñooy waa Inde seen porte parole ba mu daal di nag yëkkati nag ay jéggalu ay exécution publique lu mooy loore